gan gi Moussa Diakhaté mooy porte-parole bokk gis-gis nekk député ci assemblée nationale ñu ngi lay nuyu di am mbégte dalal la ci matinalu mi FM maa ngi leen di sant di leen nuyu ñëpp nga xam ne ñu ngi déglu seen rajo bo am solo bi. Mhm. alors fukki fan ak juróom-ñaar weex wi ñu nekk ci la marathon budgétaire bi tàmbali muy séance plénière yooyu nga xam ne si la député yi di voté bu yi ñu jagleel ministère yeeg yeneen département wu état bi lan nga mun a euh, wax ñu si euh, tolluwaayu liggéey bi ba ngeen ko tàmbaleeg léegi buñ ko doon natt. waaw nga may man ndax ci tubaab xel mi daa fat bi ma mhm. doonee député ba léegi defe naa maa ngi door a ci seen rajo bi. Mhm. waaw sant gërëm ñi ma bokkal liggéey bi yëpp. Mhm. te jiital ci nag président Pape Diop suma mhm. kilifa sama leader. Mhm. moom mi am yéene yi bëgg ma dem assemblée nationale. ak ñi nga xam aussi mooy sénégalais yi ndax fu ne message jógee na fa. Mhm. ci yaakaar gu juddu ci xëy na taxawaay bu ma war a mën a assemblée. sant aussi député yi ak groupe parlementaire bi ma mhm. bokk. le président de l' assemblée nationale le président mais député yëpp ndax ñëpp a ma teeru vraiment teeru bi ci war. Mhm. léegi léegi bi ma ñëwee na euh, liggéey bi niñ ko seetloo mooy ni ñu ngi ci. ngi ci bu ñu xëyee ci suba lañ ciy nekk bu teelee bu ñu paree guddi la minuit bu teelee ba teel. ñu ngi liggéey ñu ngi ci waxtaan ñu ngi càmbar. li nga xam ne nii nattoon nañ ko def ko ak yéene ji ñu am pour at mii di ñëw loolu yàlla def na nag fekkee wu moon commission yi. Mhm. waaye ci plénière yi moom wax ji takkaar naase na yéene ji bari na léeg sa xër dugal ñenn ñi léeg-léeg ñu féewaloo ci ay kaddu waaye lépp damay jàpp rek ni yéene yi def la. Mhm. yittee jàppale si askan la fu mënti joge léegi léegi tam mu am ci wax yoo xam ni defe naa ni war nañ ko gën a woodaat. comme démb de tàngoon na lool. waaw démb démb du démb rek chaque jour la nag ah. ndax yéen a ngi hmm. koy seetaan en direct. assemblée moom euh, quatorzième bi moom vraiment liggéey bu bari war na ci. ndax euh, boo faree mën ngaa wax wax ju yiw ñu mën laa dégg boo faru lu itam te du tee mën ngaa wax wax ji yiw nit ñi mën laa dégg. Hmm. waaye daal des na ci lu bari ci wàllu woowu. léeg-léeg ñu dégg ci baat yoo xam ni da ngay am kersa sax mhm. ndax kër ga nga dëkk di yar ci say doom mhm. doo ko wax doo nangu xale yi wax ko mhm. buñ la gisee ay image say doom di ko gis yenn yi la dégg rafetul foofu daal defe naa ni ñun ñëpp nag war nañoo sóobu jiital sama bopp nag war nañoo sóobu ci ci ci ci nu yiw ak yar yeddaat suñu bopp yaraat sunu bopp ci ni ñuy waxee ndax askanoo lañ fa toogal te vraiment am na kàddu yoo xam ni mën naa ñàkk ci suñu biir waaye liggéey baa ngay dox ma ngay non ma ngay dox ma ngay dox métti mm. na lool sax waaye nag ñu ñoo waroon dénk leen ñu mm-hmm. ñu ñoo waroon ni am nañ jot dañ leen bëgg a liggéey mm. ndax euh, ministre yaa ngi ñëw di wax li ñu li leen nattal ministre des finance ak du budget ma koy jaajëfal bu baax sëñ bi baax mm. mu am xam-xam bu ñëpp nangu li may wax opposition comme pouvoir ma nañ waaye mu ànd ci ak yarak yiw goo xam ni même boo ko boo seetloo mel na ni opposition bi moom lañ def sa ñoom seen ministre. su hmm. suñuy attaqué sa euh, critiqué beneen ministre suy wax dañ naan ko non yow taxaweel nee ñu wax loolu yëpp dafa bokk ci euh, passion bi nga xam ne ni am na assemblée ci li nga xam ne ñu ngi koy dund ci marathon budgétaire pour mu ay nat yu ñu war a def pàcc par pàcc. Hmm. jëwrin bu nekk la lañ la na la nga naal. ak lañ lay nattal ngir at bi ñu jëm. d'accord bu ma ne liggéey baa ngay dox maa ngi ciy joxoñ blocage bi nga xam ne opposition bi diggé woon nañ ne danañ ko def mu mel ni tey ñu mën a wax itam pouvoir ba léegi moo teg tànk ci assemblée nationale. ah loolu de la yàlla dogal boo seetloo information yi boo seetloo ni muy demee ndax pour nga bloquer bay fekk nga ëpp doole. Mm-hmm. waaye lii dëgg te ñu tey ñu war ko mooy euh, pouvoir bi moo moo fa ëpp doole moo am. ndax vote yi ma ngay jàll. Euh, blocage bu fekkee ni moo doon gi bees gi ñu bëggoon andi assemblée dama ni kon yalwaan tuuru na. Hmm. en tout cas amagul boobu foofu ba léegi. Hmm. li li ñu seetlu daal mooy ni. am nañ systématiquement moom sama gars yi opposition bi wote luñ benn budget nag. wote hmm. wote am na ci benn benn quand même. yoo xam ne par rapport ak dañuy def revendication. laajal seen askan. pour ñu nattal di yokkal leen moo xam poste police moo xam hôpital moo xam euh, yeneen yu ni mel waaye bu dara desul pour ñu voter budget bi nga xam ne ci lañ leen war a defaree lañ bëgg. Mm-hmm. ñu ñu ñu voter contre waaye loolu dama koy def ci ci ci ci communication politique itam. Mm-hmm. dama leen koy nangul. mais daal euh, blocus moom ku ko doon xaar yaakaar naa di nga xaati parce que mm-hmm. amul la vérité mooy groupe euh, parlementaire euh, Benno Bokk Yaakaar mooy majoritaire à l'Assemblée nationale. te yéen ñi nga xam ne yéen a ngi koy suivre li mu ñu voté. mooy intérêt ñun ñëpp xam nga li ñuy voté budget la mooy li war Sénégal. te mooy bu bees ñun dañuy door a xam nga li ma d'accordoon man mën naa juum nag. ndax hmm. vraiment euh, bu la laa daqaar bu bees dàq laa nag hmm. itam xëy na bëri waxee ma cee wax loo sax. Hmm. waaye comme lu bees la. li nga xam ne yow d'accordoo ko wala euh, waxoon nga ko te bokk ci. nga ne leen nañ ko ci boole. nga may leen gët seetlu. comme dañuy nat li ñu war a def ci askan bu fekkee ñoom def lañ la wax ci budget bi. defal nañ ko sa askan. bu beneen bi ñëwee nga voté waat. su dee defuñu ko nga ne ah bële kat voté woon naa ko sous réserve ne leen nag maa ngi leen di may gët. su fekkee la nga bëggoon defuñu ko. Mhm. waaye doo voté waaye daal li ma gis moom. Mhm. su fekkee ni démb ak barki démb nit ñaa ngi doon ŋaññi majorité di wax majorité mécanique te itam nañ xam ne am na li ñuy wax opposition mécanique. Mhm. waaw ñoo xam ne duñu voté dara duñu voté dara lépp loo wax rek ni contre contre waaye yàlla na yàlla def jàmm daal liñ ci mënti wax rek njëriñ Sénégal rek di ci ball alors ñu wax ci euh, règlement intérieur tam bu assemblée nationale bi ñu ne dañu ko falsifié loolu itam jur coow Mamadou Lamine Diallo yëkkati ko lan moo ciy dëgg loolu di dégg naa Mamadou Lamine Diallo wax ko ci biir hémicycle bi ma dégg suma mag Seydou Diouf président commission des lois addu ci ne ne furaas dañu xëdem dara amu ci. Hmm. doogu diggante ñaari spécialiste la ñoom ñaar ñëpp di samay kilifa nag. waaw te man li ma wax rek bi ma ñaare sax su ma ñëwee ci barab damay gëstu li leen tënk maa ngi yër nag euh, règlement intérieur bi. ndax benn laa ci am ndax pour nga mën a comparer da ngay yor ñaar. Mhm. benn laa yor te benn boobu nag bañ tàmbalee ba léegi moom la ñuy utiliser moom la ñuy liggéeyee. Mhm. waaye dana ma may ma gën a gëstuwaat seet ndax ay ndaw lañ nekk ci yoon. Mhm. te bëgg rek dëgg. bëgg rek dox ci jub. waaye nag ku sa wu juddu sëlam doo set. waaye dégg naa ci ay kilifa yu ci wax yoo xam ne ni ay na yéwén du ma ñoom du ma jiir ak ñoom ndax. Eh, dan maa war a jàngal dinaa gëstuwaat. leerluwaat fu li ma leer daal mooy règlement intérieur boobu barki démb. Mm. honorable député Ayib Daffé ak honorable député Guy Marius Sagna euh, sukkandiku nañ ci. Mm-hmm. pour wax ni article quarante six bi da leen may ñu am reg euh, rapport yi. Mm. bés balaay ministre bi di ñëw. Mm. daan dañ ne waraan distribuer ci saal bi su ministre bi accès bañ ko defee gis naa ni joyante am na. kon ma yëg ni yéenay assemblée mooy saa yoo xamee ni rek. ni am na loo xam ne war nañ ko joyanti yéeg nañ ko. Hmm. danañ ko dox lool gis naa ko ba ñaari fan yi itam ñu ko bëggee woon ñoom. Hmm. moo ñu ñu ñu sàmmanteeg charte charte assemblée nationale muy règlement intérieur def nañ ko. Hmm. maintenant nag def nañ ko defuñu ko soppi nañ ko man benn laa ci benn boobu gis naa ne ci lay liggéey boobu ak léegi. waaye comme ay ndaw lañ di bees duñu tayal danañ gëstu danañ fuye li am solo daal te mu tënk ñu ñëpp. Mm-hmm. mooy ñun ñëpp ci ci ci ci li ñu tënk la ñu war a dox kenn waru koo wàcc kenn waru koo weesu. Mm-hmm. budget ministère de l' intérieur yokkute bi toll ci téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent ci ay milliards ak lu wala lu ko jege am na ñu ci gis tiitaange ne euh, wutum kaaraange ëpp googu daal am na xëy na lu làqatu ca gannaaw loo ca yaakaar yow en tant que ndaw askan wi ci assemblée. a ah, man de yaakaar ne kaaraange doyul ci réew mi ku gis takkatu leen greffage bu normal yoratu leen sàcc ndax bif yi ndax sàcc yi ndax agression yi man jàpp rek ni lu mel ni ministère de l'intérieur buñ ko renforcer day mu ak moyen dañoo bëgg a yokk vraiment li nga xam ne ñu ngi koy def ci liggéey bi di leen sargal nag ndax seen na ay patrouille yoo xam ne ni depuis quelque temps ñu ngi wër di dalal xel yi pour moytu sàmbaaboo yi donc dolli leen li ñu leen di natal buñ ko dollee jàpp rek naa ni dañoo bëgg a yokk moyen d'intervention yi pour que sécurité yokk sama mbokk yi politique itam te nekk ci opposition bi eh, boo ci waxtaan ak ñoom parce que tam li coow li bari bari bari eh, waruñu fàtte ni ñun ñoo bokkandoo langue politique yi léeg-léeg ñu waxtaan ñu ne du ñu wote budget bi ndax buñ ko wotee ay liif lañ koy jëndee grenade dóornu loolu yëpp ci kaw kafagre ndax looluy Sénégal li ma jàpp daal mooy ni ministre de l'intérieur luñ ko jox ci moyen doyul léegi nag pour moyen yooyu dem jëm naa ni dañ koy jëndee jàppale policier yi ci seen i nekkin jàppale commissariat yi ñu gën a bëri ci dëkk bi jàppale sous préfecture yi ndax kat ministre de l'intérieur li mu ëmb te war koo liggéey liñ ko mos a nattal yëpp lu mu bari bari jàpp naa ni doyul par rapport a kaaraange yi nga xam ne ni war nañ ko yokk rawatina nag bi suñu réew mi nga xam ne li ko wër te ay réew yaa ngi ko dégg la fa nekk tey coow ñu ngay wax mbiru terrorisme yaa ngi dégg mbiru cybercriminalité ndax ak xarala yu bees yi insécurité bi yematul rek nekkatul physique même au plan euh, des réseaux sociaux yooyu da cee bari ba war nañ am jumtukaay yu mat ba saa yu mbir xewee rek sunu sunu euh, ministère mën a jóg taxawee man daal noonu laa ko jàppee du mm-hmm. ma damay nangul keneen nag gisee neneen waaye daal jàpp naa ne luñ dolli sunu jàmbaaru police yi. luñ ministère de l'intérieur doyul ci wàllu woowee. ñaari gendarme te kenn ki ñu gis ne wam ci euh, boori Cap Manuel ndax euh, yaakaar nga ni am na lu mu laaleeg mbiram Pape Alé Niang. ah nit suy wax loo wax tey da nga ko waxaat ah, ah, ah, àllaaxira lu ma wóorul duma ko wax bëgg ñu dégg ma du tax ma wax lu ma xamul li may njiiteel daal mooy jaale jaale jaale ko ay seen i waajur du ñoo Sénégal lañ ñu dégg ne ñàkk nañ seen mbakkan li nga xam ne nag moo war itam mooy li war fépp ak ñëpp mooy topp mbir mi ba mu leer xam lan moo ko undu lan moo ci nekk ba tax na lu génnagul daal bëgguma di mu sori ëllëgee mbir xew may am ker sawal dur li ma métti daal mooy ni bakkan bu faatu pour man Euh, lu diis la lu rëy ndax bakkan dafa foor kenn rek ka yeeyoo jël muy yàlla sunu sunu borom su keneen ku mënta doon tam nag bu la dalee dañ lay masawu masawu sa njaboot ci nag nañ leeral lépp ndax bakkan dafa ko hmm. ndax laale naag mbi rek laalewul mbir ay na yeween xaw ma ci dara te hmm. bëgguma lu ma xam d'accord mbiram Pape Alé Niang ndax jàpp nga itam ne ëppal da caa am ndax taskatu xibaar yëpp jàpp nañu ne euh, li ñu ko tegee loxo du yoon ndax liggéeyam dong la doon def yow nga nekk euh, itam taskatu xibaar àlla base ndax euh, booba gis-gis nga ci am ah dama lay bàyyi yow nga jël responsabilité bi nee nga taskati xibaar yëpp ñu bàyyi ànd nañ hmm. waaw ci ëpp waaw waaw bu fekkee ni nag benn bi mbo man man ci kër gu ma bokk donte nag li ma wax damaa mbubu damaa summi mbubu journaliste dem politique bi hmm. lu ñu bari dul def ñu bari dañuy bëgg a nekk ci rédaction yi di làqatu di politique loolu itam bokk na ci lu ñuy gàkkal askan wi bi njëkk mooy solidarité wu ci koor ndax su ngeen bokkee mbir nekk ca ak lu mënti xew ak lu ñu la mënti dénk def nga am defoo cër bi mooy masaw la hmm. prison man dama ko yéenewul kenn kuy dox ci kaa bi hmm. kenn kuy mënti dox ndax nag lim def jar naa dem prison war a jël dem c'est des cas d'école am na ñu jàpp ni wax ji ëpp na waru ko wax ndax waru euh, woy wuy këpp gaal kenn du ko woy ci tefes am na ñu ni ci liggéeyam la nekk su fekkee ni loolu ñu yëkkati di wax délit de presse suñ ko naree topp kon journaliste d'investigation du du def liggéeyam. Mm-hmm. mani ni dans l'un dans l'autre lépp day laaj waxtaan. Mm-hmm. ndax investigation gis nañ ñi léegi pour sa mu mën a dox nekkatul yi fi benn nit. ay kuréel ñooy yaa ngi koy dégg ay mm. kuréel ñooy organiser wu pour mun am doole mm. voilà mun ko gérer defe naa ne mm. réflexion yi war nañ ko forte foofu ndax def naam deful ndax ëpp naam ëppul euh, ñu ñu ñu ñaan dal man loolu lay ñaan ñaan dal mm-hmm. je suis journaliste bu dara dalee ci kaw journaliste ma neex mm-hmm. ci lu ci lu ci lu nekk fitna mm-hmm. ndax moo defam deful am nañu jàpp ni li mu wax ëpp na waru ko wax te itam ñu nangu aussi ñun ñii di yëngu ci tappa di doon taskatu xibaar nii c'est pas parce que euh, taskatu xibaar lañ ba lu ñu neex wax ba du ñu daal réew mi tam daa am yoon yoon yoo xam ne ni ku ko jalgati yoon dal sa kaw. Mm. li may ñaan daal mooy daal am di ko ñaanal clemence mu mu mu mu génn dellu ci njabootam nit ñi liggéey waaye lépp loo xam ne day yokk liberté dafa war yokk responsabilité mm. am na wax yoo xam itam ku ko wax. yoon la yoon teg la loxo ndax am na wax yoo xam ne ni warta génn néeg bay àgg ci ëtt hmm. loolu yëpp nañ ko nangu en toute responsabilité di di di di di wax ni nañ jël ñun ñëpp suñuy responsabilité hmm. ñi bëgg def politique nañ génn ci rédaction yi assumé wu dem bokk ci parti politique yi nañuy jàppale ñu jàpp ñu xam ñii dañuy politique waaye itam léeg-léeg dangay nekk ci rédaction te yaa gën a jege militant bi sa responsable bi hmm. say wax yi ngay wax amul lenn loo xam ne ni lëmboo na ak joxe xibaar da ngaa jéng di wax wax yoo xam ne itam Euh, yenwul maana ci ku xam ne nii dañ laa jàppee journaliste. Mhm. ba tax na itam loolu lu njara wax la ni ñuy waxee ni nañ respecté journaliste nañ leen bàyyi def seen liggéey nañ ami aussi le courage ak l'honnêteté ne ñenn ci ñun dañuy ras déem dañ bëgg nekk journaliste alors que dañoo mbubboo journalisme rek mais c'est des acteurs politiques. Mhm. ñu ngi ciy yëngu na mbir mi leer ñu def dichotomie bi. ñu jeexal te itam ñu bàyyi ñu bàyyi mhm. journaliste yi ñu liggéey. Mhm. ku nekk defe naa ni boo nekkee ci sa liggéey. comme ni ko le président Macky Sall waxee woon. mu bañ a am benn journaliste boo xam ne ni dañu ko teg loxo. Mhm. ci wàllu woowu. d' accord ñu jeexal rapidement ak euh, mondial beek sunu gaynde yi liñ jot a def tax na nga yaakaar ne mën nañoo sori euh, la yaakaar nga ni am na xëy na euh, lu ñu mën a gàllankoor ci ci yoon wi. Ah, ab jullit de yaakaar ko yaakaar ju rafet a ko war saa su ne. ba pare nag teg ñun nag sunu gaynde yi xale yoo xam ne jàmbaar lañ. c'est vrai que contre Hollande ñàkk nañ ni ñaa ngi wax naan classement baag laag jàppal mais dama jàpp ni xëy na lu waroon ñëw la deuxième match bi gis nañ ni joué nañ gagné Sénégal sans Sadio Mané techniquement du bari dana wàññeeku mais mantalement defe naa ne xale yi bàyyi nañ xel ni coupe du monde bii bu Sadio la ndax man jàpp naa ni ni mu ba fubalee Bayern sax da doon rënk boppam mën a dem coupe du monde yàlla ak dogalam nag def mu am blessure xale yi ma gis nag ku ci gis naa ci gone gu gu gu bees gu tudd Elimane Ndiaye xaw ma ah dal na xel de bokk na daal jàpp naa ni ca moom xel mu gàtt nag ndax ñun Sénégal ñun ñëpp ay entraîneur lañ. Mm-hmm. gone googu daal ku ko ci bàyyi xel lool lool lool mën naa mën naa bu deful li Sadio daan defit euh, andi lu bari ak ñi mu àndal ñëpp nag gaynde yi daal man dama yaakaar ni. Mm. Euh, bu ñu góorgóorloo gëm te loolu mooy mentalité bi ma gëm. ñu ñooy première champion d'Afrique champion d'Afrique nag bu demee coupe du monde dara jomb ko fa. Mhm. waaye li muy wane rek tam ñàngat bi ma ci am mooy. nit ñi nañuy gëm yàlla te seen bàyyi seen bopp yàlla. Mhm. ndax ku waxoon Sadio Mané coupe du monde bi doo ko joué. Mhm. amaana ñu bëri dañ naan la boo seetloo ni mu gaañoo sax moom moom demul taakale ji moom moom moo dem taakale ji moom taakale wuñ ko. lu pour waree nag nii loolu rek leçon de vie la man man sama bopp. comme dañuy wax ci mbir politique ak jikko. te ñu xam ne yàlla ay mbiram du du du du nañ gëm yàlla hmm. jubal dëggal te xam ni mooy joxe te bu la joxee mu rafet hmm. su boobaa ñu wax ko ndam daal yàlla na am hmm. andi jàmm ci dëkk bi loolu rek a jërë ñaanal Sénégal jërëjëf vive la démocratie vraiment yàlla na yàlla def jàmm ci mim réew amin jërëjëf Moussa Diakhaté ñu lay gërëm bu baax a baax di la ndokkeel itam ci ndomba tànk député bi di la ci ñaanal ndam euh, di fàttali ni mun nañu teewluwaat si réew mi point com ak réew mi TV officiel suñu chaîne ci YouTube jërëjëf ñu yendoo ak jàmm jërëjëf soxna si jërëjëf